waaye nag sa bopp dara yeewi naa la daal sa bopp am na lenn lenn lenn loo ci dese sëppatum dara na leer ñëpp ndax mel na ni daal am nañ lu ngeen xamul ndax danaa ci daal dana am luñ téye ci seen bopp mbaa am lu ñuy jéem a doonal ci seen bopp dara feeg nit a ngi foofu nag naa xam ne seq ma nada dara nag ne danaa dajeeg nit sax mu ëpp ko taw feex nag waaw ne damay dox di ramm di dégg di ramm di gis di ramm ci mbaaxam ak yërmandeem ak taw feexam ku dox nag ba dajeeg lu mel noona war ngaa xam teggi ne te bañ a desal ci sa bopp dara nag foofu rek laa yem xam ko

ku mana mën na ne nangam wa yow ma tubla sarair ku dana xam kanay kan man nag xamal naa saa ne duma dar duma ci dara waaye nag naka jekk nag yurmandeem jeeg tawfeexam jaglem ji da koy sagaleb rek ñi ci des ñepp doxut ci kum nam ci won dimbal ak rek mu nga ne ko ñap rek te muy deug ci yow tagasel la rek la ñoo ñoo ñeekat fi mu ne ñu wax ci lisaanul xaal de moom day léeg-léeg li may wax waxtu bu ne jaam bu ne ak digganteem ak boroom la kenn yàgg moom na lu la dundloo nga dund ko mu xam loola ko nga xam ko mu yëg loola ko nga yëg ko loolu yoonu kenn nekku ca ku ko yëg ak ku ko yëgut ak ku ko gisut ku ko dundutit seetal la la doy nga nek ca rek te maandu ci lool ndax su wa lor du ci juddo lool ci ci limuy juddo moy wedd ndax wedd mom moy li yalla def lepp xamna ko to baaj bi nga wax gisuma ko ci dégguma ko ci wa moy li yalla def lepp xamal na mako te yow li nga wax ko ci lool moy wedd lool nak dara jëru ko ci abdal lool ma don wax nak ci ñoo ñi ma don wax suñu manon kat wax ñi nga wax sax ci ci sen lisanul hal xayna ñu am marché bu dégg ko ñoom danañ ko xam mooy bu leen dese dara seen wax ñoom ñoo bu leen dese dara ndax ku ci ne yaa ngay réccu xam nga luy réccu je yàlla jalal la teraanga joo xam ne xamoo lu la ko jox waaw mu jalal la teraanga joo xamante ni xamoo lu la ko jox yow waaw mu wóor na neen ni yow buñ doon dañ doon dox sax yaw soqee ko ab jéego mu defal la teraanga ju toll nii defal la taw ju toll nii la ngay wax ak ca des nag mooy ah mbir maa ngi noonu de jàpp leen te bu leen dese ci seen bopp dara te bu leen jéem a am ci seen bopp dara bu leen ame xam-xam bu leen amee xalaat waaw topp leen joxañ ba te dox te wéy bu ko def day doo ko rëcc foofu te doo ko fii ñu ne moom waxale su ko fi ndax ñun xam nañ tey xàmmee nañ tey suñuy bët nee na jar waaw fa kachaf naa xan ka xitaa ak fa basarukal yow ma xadit leer na nañ ci ñoom léegi dara doonatul seen kump ñoom egg nañ ci yow ma tëb la sarair nun nun no noo ci àggugut moy tax nañu xolaat suñu bop bu baax a baax a te de te yeesalaat sunu laxasaay bu baax a baax te baax te fetliwaat sunu doxin bu baax a baax ñun ñepp nag la ci waaw des na ci kanam kat ah xam gi dana am ndax li may wax man na di suñu bari Wah ci ñuy dund ci kaw suuf des na ci kanam danañ ko xam-xam gu leer gu set wecc guñ dul sikki sàkk guñ dul nattable mm-hmm. waaye nte nag su boobaa bu xam xam-xam ba ànd ak boo dikkee fekk mu toog fii mm-hmm. ok loolu loolu mooy doon jafañ jafañ bi bu boobaa yàlla nu yàlla wal dëgg dëgg teggin yi ñu war a àndee gaa yu baax yi yàlla nu ko yàlla yankiwal te saxal nu ca dàkk nag mm-hmm. ndax melawu man di don bu saxut du am njariñ mbirum yàlla yépp ni nga laxasaa laxasaayoo jóg daa war di gën di dëgër ba keroog sa roo di teqalikoo sa jëmm waaye wërta gën a yolom mukk wala di jéem a yolom mu wërta am foo toll laxasaay gi daa war a dëgër këng këng këng këng di yokk rek waaye dara wur wuru ci wàññeeku mooy tax nañu nemmee ko suñu bopp nañuy seet suñu bopp te ku ne na xam nga sa bopp ni ma koy waxee waxtu ku ne xam nga sa bopp waaw ku ne xam nga sa bopp te du sikki sàkk sa bopp dara comme comme ko dajak buntu yàlla looy dox di denc aka karkaral ci sa bopp dara te joxe woo ko xawma ko de xawma ko de yàlla nu yàlla yankiwal teggin dëgg dëgg teggin yi ñuy ànd ak ay gaayam te musal nu ci ñàkki teggin ndax kat dana may ci benn jataay nit loo xamante dana ca defaroo ba faw waaye dana xañ nit loo xamante dana ko xañ ba faw te du ko doj te du ko jotati a sàmm gën a aar gën a taxaw te gën a may fàttali waxtu wu ci liggéey bi ñuy def bu ci kenn xeeb lu muy def lu mu cay def waaye weer wu dee bu ci kenn jëlal dara na sax na sax di leen ko jot leen ci seen biir te fu waaye dem na koy yóbbaale góor jigéen mag ak ndaw ku ci amu fifty nit fifty noona sax weeru dee nga di ko def di jëm yàlla tax nit du xoole ñu liggéeyal yàlla saa soo ñëwee gis lu jëmm di yëfi yàlla te ku la laaj ndax barkeeloo nga te dara nga ni ci yàlla di xoole te yaa ngay faj say soxla yaa ngay faj say aajo kuñ tak say loxo takk takk say tànk nga jëm ci bàmmeel day dana am loo fa aajo dana am loo fa yittewoo te tawfeex jay jay tax ñu dajak loola day di jëfal yàlla di ko fàttaliku di ko sant ci sunu jëmm di ko sant ci sunu alal loolu ci la bokk kenn tegul kenn ku ne defal la nga man te yàlla tax te tëliwoo ko waaye na sax dàq ba keroog ñuy sàngoo suuf ñu batale ko sunu ko sa loxo ku doole ko tam sa loxo kenn yemale sa benn yàlla yemu fenn. déedéet yàlla dama amul fu mu yem te ku miiraas sa ba jox ko tamit dëgg ci yow it day dana la ko wutalal loo loo njootut foogoo ko xalaatoo ko nag mm. ndax moom moo ko doole de. Mm. lu ngeen joxe ma wuutal ko waaye nay dëgg ci noon lu ngeen joxe ma baatu yàlla inna allah laa yuxliful mihaat yàlla du wutab dël ñun ñii ñoo fi def lu ñu wax mu deñ koo fi waxal wax ja deñ lu la ci nit dikk wacc ko lu ne lu mu ne danaa ko def du ko def koo ci séentu doo ko gis nun noo koy defantu ci sunu biir waaye yàlla du def loolu fum ne la xaar fa xaar ma fa wala taxaw fa dana la fa fek ak nangam taxaw nga taxaw fa te jugo fa lam la fa wax dana la fa fek te mom mo wax ni su ngeen joxe ngir yàlla danaa leen wutalal ndax xanaa du ay julit am dañ mana gëmut am dañuy sikki sak lan fexé nak ba mom tax na mom tax na mom tax na mom tax waaw gën jox kon day lañ mëna yok bu suba rek bu suba nak nonu dajé ku fi ku ñu njëkk ñu xëy si ñu fi xëy si wallaahi dinañ ubbi kaamil bi tàmbali ko ak nooru daari ni ak jaalibatu maraax yi ah, nañ ca nekk ba ba may ubbi buñ saafante ba noppi it ñu mën a def xamim bi ca jàkk ja mën a fàttalante te déggante waaw kay jërë ngeen jëf kon bis lay jàmm